mbokk yi nga xam ni yéen a baaxoo ànd ak Sohaibou di gërëm bu baax a baax Baye Assane Mesre di leen wax ngeen di gën di wéy di abonné fii ci seen compte YouTube ngir di mën a am lépp lu fi bàyyi ko jaa ngeen jëf mbokk yi ñu bari ci ministre yi li ma jaaxal mooy kenn ku ci nekk ci ñoom agressé nga ci wàllu langue yu baree baree baree baree bari réew mu nekk nee nga fa naam dramé dégg langue yu bari waaye seen diine jii moom doy na waar tey jii la ministre Antoine jom moom de nga ca salaatu ala nabi <laughs> monsieur le ministre man daal sama ministre yi dama leen a faam président Sonko moo ñu tooñ président Sonko moo ñu tooñ biñ ko gisee muy wax ay ayaaki xaddis toog yore jukki alxuraan di jàng xaddis yu leer nañ ci la gaañu commencé borom xat fakk kabla moom kenn déggatu ko Antoine ñu bàyyi la nga nuyoo beneen yoon ahousu billahi min asheytaani rajimi bismillahi rahmani rahim allahuma salli ala seydina muhammadin wa boobu nga jëloon démb de rabbi shrah li sadri d'accord kon ñu bàyyi la kon rabbi shrah li sadri wa yasir lii amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli jërëjëf sëriñ bi waaw ñoo ngi lay nuyu ñoo ngi lay fay. di la ziar. ñoo ngi la koy delloo. lan moo fi doonoon say tànk. di jottali nuyu président de la république. son excellence Macky sal waaw nee ko fay nañ ko. di la ndokkeel bu baax. ci bis bu mag bi sunu borom def ko royuwaay jullit yépp moom yonent bi à salaatu wa salaam. yàlla da ko tagg ci lewetaayam ak dalam. ak xolam bu yaatu. ministre de l'intérieur bu Sénégal Antoine jom ci ban saar nga ñuy yebal. bu ñu demee ci sóoratu Ali Imran. waaw Ali Imran. yàlla ma nga fay wax naan. fa bi ma rahmatin minallaahi. fa bi ma rahmatin minallaahi waaw. lintahum. Ah. lintahum non non non non non Antoine vraiment lii nag moom lii nag man man man comprendre ma nga ni fabima fabima rahmatin minallaahi waaw lintahum linta lintahum waaw man Antoine alxuraan ji muy wax nii maanaam lii fan la ko jàngee ndax alxuraan ji xanaa alxuraan ci wala ci pale bi la wàcc wala alxuraan ji man ci jamono yi xanaa wala alxuraan ji muy wax laa xamul lintahum fabima rahmatin minallaahi nga ni lintahum linta lintahum non lintahum fa bima rahmatin minallaahi linta lahum waxal linta lahum linta lahum linta lahum waxaatal linta lahum linta linta lahum d'accord commencé waat ko fële ci ginnaaw fa bima rahmatin minallaahi nga ñëw fa bima rahmatin minallaahi waaw linta lahum d'accord boobu moom mokk na ñu dem lii de moom gàcce la ngay kilifa ci réew mi nga dem ñi jox la micro ngay wax li ci alxuraan ah ñu dem rahmatin minallaahi linta lahum ma yow saa xanaa ni nga ko mokkal moo tax ngay waxoon nga ko léegi wala li nga li nga ko mokk la tax nga di ko répété ñu dem. illa axiril aaya. ah illa axiril aaya. non aaya bi des na de. illa axiril aaya. d'accord ministre Antoine Diome maa ngi lay ñaan ngal boo demaatee ci kila joxoon aaya bi xaw ma lu tax àggale woo aaya bi na nga dem te njeextalu aaya ba fa iza azamta fa tawakkal alallahi inna allaha yuhibbul mutawakkilina ministre Antoine Diome ngal la boo demee ba ki la joxoon aaya bi le na nga ko laaj lan la yàlla wax ci njeextalu aaya bi le yow ak sa kilifa képp ku mu doon ku nekk ña ngeen di fekkee ku nekk ngeen xam njeextalu aaya bi lan la ci yàlla wax ngir yërmande ah ngir yërmande lan yërmande mooy lan ngir yërmande ah d'accord monsieur monsieur le ministre Antoine Diome léegi yow looy tëjee allahumma salli aha nangu leen ñaan ala seydina Muhammad. nangu leen ñaan ba tey mbokk yi. alfatihima. ah. alfatihima. mu ni. alfatihima. alfatihima. alfatihima. loolu moom amul ci salaatul fatihima. alfatihima. ah. alfatihima. alfatihi. alfatihi lima. alfatihi lima. alfatihi lima. kon boobu mokk na. ay ca continuer ñu dem. uqlixa. uqlixa. fokk ah, léegi ñu dem. wa xaatimi lima. non non non non. wa xaatimi lima. non wal xaatimi. wa xaatimi wa xaatimi lima. wal xaatimi lima. wa xaatimi lima. ah boobu daamen salaam mi mënu koo jàpp ñu dem. sabax. ah sabax. ah waa sabax waaw. nasiril xaq bil xaq. waaw ah, booboon mokk na wahaadi ah wahaadi ila siratikal mustaqim ah wahaadi ila siratikal mustaqim wal haadi wahaadi non wal wahaadi non pas wa wal wahaadi wal haadi wahaadi ila siratikal mustaqim ah garaawul ba léegi demal. wa ala alihi. waaw. wa ala alihi. xaq xadrihi wa mixdaaril azim. wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. waaw monsieur le ministre waaw lii nga wax ne mu am ay damm-damm yi nag waaw lii lu tax. dañuy jéem a nafar li ñu li ngeen ñu jàngal ci daara ji. mu ne. dañuy jéem a nafar li ñu li ngeen ñu jàngal ci daara ji. Ah, da ngeen di a nafar <laughs>